ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér ak Dakar. Tiwaawan ñu koy waajal bu suñu borom yàlla xare ko àjjana bari suñu naaw taxaw ci parce que lii ñu bëgg a baax réew moo xam ne jàpp rey dana waar jàpp nañ système bi waaw. Correa, vai. waajal ndeysaan pour yóbbu ko Tiwaawan lu ana lan moo gën a métti kuy liggéey di daan doole ñu fekk ko fu ñu liggéeyee rey ko mais comme nañ jàpp nañ suspect nañ jéem a xool nu justice gars yi ko seen seen liggéey parce que Malick Gueye demal eh? eh, Malick Gueye ci biir mu waaw mi ngi noonu day bi léegi jàpp day comme ni ko gars yi di waxee rek couvre-feu bi fi amee vingt kenn daanoon génn ci biti xam nga li tax war ñoo mën a def loolu ñu dangay dox nit ñi ba une ci tali diggante ay kilomètres doo gis policier bu taxaw une heure du jàpp deux heures du matin ñoom ñoom lan mooy seen liggéey ñii dañ koy taxaw

nekk lu doy waar ah. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar